na solo lool ngir teew ci askan wi ñi xaw a suufe ngeen tàllal leen micro ngir xam seeni bëgg-bëgg ak seeni tawaat. askan wi de moom daañu xaar discours bi sax. moom loolu man sama xalaat xam naa bari am na ci amu ci. Macky Sall moom buy discours euh, na wax loo xam si maanaam euh, askanu Sénégal kenn ku ci nekk maanaam danga ci ciy mën jariñu daal. man euh, aw ma yaakaar ne dinaa ci gis sa mbopp man déedéet. discours bi même man euh, du ma ko seetaan. man danaa ko déglu waaye déglu gi daanaka maanaam dana am njariñ du am njariñ ndax noonu li nga xam ne moom lañ gis teg suñu bët nga xam ne jamono Senghor ba léegi ñu ngi fi xam nañ ñi fi jaar di wax di ko def xam nañ ñi fi nga xam ne jaar nañ fii itam li ñu wax defuñu ko waaye nag faaw ñu di ko déglu moom ndax euh, nun citoyen leen ci réew mi leen dëkk te ay mag leen itam lu nekk fekk nañu fi. maa koy. Euh, bàyyi xel di wax maanaam ñëpp nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi xel maanaam moom it mu jublu ci li nga xam ne mooy liggéeyu Sénégal wax dëgg yàlla parce que Sénégal maanaam jàmm lañ bëgg ah kuy jéggale ak di jëlale tey ànd ak ñun ci liggéey bi wax dëgg yàlla. ah li nga xam ne mooy wérte wérte daal mooy li muy wax mu dimbali nu ngir yàlla def ko ndax xaw ma moo fi toog xaw ma kan na fiy toog waaye lu waay wax def ko daal. moom wala nga jiim ko daal ba askan bi yëpp xam ne yow def nga sa kéemtalaay kattan daal lu amal solo askan wi la su fekkee yàlla dogal ne maanaam mu waxta def ko ah fële laa yem di su waxee te defu ko itam xam ne rek maanaam lam daan def def na ko. ñu ngi koy xaar daal ci lu bëree bare bare bëri ndax social bi tamit wax dëgg yàlla dañ ñoon année 2018 bi social année sociale la waaye social bi même bu amee tamit am na des na bu baax a baax daal ndax néew ji doole yi daal wax dëgg yàlla gisuñu ci seen bopp bu baax a baax. foofu daal wax dëgg yàlla ñu ko fi xaar tamit. daal su sañoon daal moom mu mu mu mu mu jàppale ndaw ñi bu baax a baax a baax te xam ne Sénégal maanaam euh, bëgg nañoo liggéey ndax ku dem ba jël sa bakkan bi jaarale ko ci biir ndox mi ci gaal gi xam nga loolu loolu loolu loolu métti na kooku bëgg naa liggéey su ma sañoon nag moom mu boole ci discours boobu noonu ngoon incha allahu bi may xalaat ne bu ci bu ko doxalee dina amal askan wi njariñ mooy mu fexe ba ñëpp ñu war a bokk ci élection yi bokk ci élection yi. comme moom wax na ni mooy mbër mi ëpp doole moom man ñëpp ba maa ngi dégg Amity Touré mu ni def nañ am nañ 3 millions parrainage kon wërta ragal benn candidat na bàyyi ñëpp dem ñëpp ay sénégalais lañ ku man sa morom duma maa ngi koy xaar ci loolu mu wax ci lu leer. tandi pas mën naa mën na cee wax mën na cee bañ wax mais daal mu wax ci daal xam naa ni mooy gën a nekk li nga xam si ne moo gën a rafet ci deram daal waaw ak euh, yee askan wi daal. ñu gën a xam lan mooy parrainage ndax sama classe gi ak ñu bëree bëri xamuñu lan mooy parrainage ak naka nañ koy defee ak naka la ñuy càmbare affaire yi ak ñi nga xam ne tamit dañoo lajj tamit li tax ñu laj tamit mu leeral askan wi lan moo tax ñu lajj loolu tamit da ci am solo lool. parrainage yi moom wax dëgg yàlla moom ban man bàyyiwuma ci xel en tout cas daal man moom Sénégal moo ma ñor su ma sañoon daal moom wax dëgg yàlla moom mu liggéey jàppale waa Sénégalais yi Sénégalais yi mu jàppale leen ñoom ñëpp te yàlla rek tax. li mu nar dëgg daal na ko wax ngoon te ko waxee mu appliqué. mais bu waxee lu ñu arrangé wu lu ci mën a xew rek nañ ànd ak daal xam ni président la kilifa la te ñun ñu ñun jeunes yi ñoo yor tey ñoo yor ëllëg bu tey baaxee si ñun la bu ëllëg yàq yow tamit ci ñun la. am si gisaguñ seen bopp am ndaw ñoo xam si gisaguñ seen bopp ndax wax dëgg yàlla daanaka boo xoolee suñ xoolee suñu atelier bee ñëpp dañoo toog fi mu ne nii te heure bi du heure toogaay Sénégal maanaam ñii lii war na fee jóge bi yàgg yàgg yàgg. xën yi bëri na si ñoo xamante ni ay père de famille lañ ay xale lañ mais ay père de famille lañ buñ buñ buñ ci yóruñ ci yokk ci ñoom muy pour ñu mu jàppale leen ñi amul xëy mën a am xëy ñu am xëy tamit te la ñuy xëy xëy ñu mën cee mën a jàpp ba mu gën a dëgër. diwaan biir Touba moom mbir mi dese na fi lool lool lool lool rawatina gox yi ma féete man ndax am na ay ndaw yu topp sama ginnaaw yoo xam daal dese nañoo gis seen bopp ci président bu baax a bax a baax a baax. maanaam ñu góorgóorlu rek ci maanaam euh, seet ki nga xam ne nii nit ku nekk am na koo yaakaar na maanaam bu toogee bu ëllëgee maanaam da nga ci mën a gis sa bopp nga jàppale ko ci ci carte yi waaye li weesu moom mënuñu ci mënuñu kenn jàppal. mënuñoo kenn jàppal tegal fii sa tànk maanaam wateel ko déedéet man de wax dëgg yàlla du ma ko wateel xanaa di ñaanal ñëpp rek di ñaanal koo xam ne ni yàlla moo la teg ci bopp réew mi ñu lay yàlla yan sa kaw ba nga mën a geesu sa waa mën leen a liggéeyal di sant waa réew mi baax di leen ñaanal atum jàmm ak salaam di ñaanal ñëpp daal di leen ñaanal yéen tam ci teewaay bi ngeen fi teew jërë ngeen jëf mi ñuy duggaat nii eh, yàlla nañ ko fekke eh, te fekkee eh, njariñ yëpp yi nag ba sëñ Tuuba